mu ci am ay waxtaan yu am solo yoo xamante mu ko fay amal di ci faral di woo ay mbokki jullit yoo xamante ay mbokki taalibe yoo xamante ni dañoo am wàccuwaay ci barab bi tey jii nag mu wowoon fi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom itam ñu ñëw fi délégation bu am solo boo xamante ni macha allah li li muy firndeel mooy euh, yoon wi ni ka xam ni nga xam maam Cheikh Ibrahima Fall la ko kii woon ñoom itam ngi koy dundal bu baax a baax rawat na barab bii nga xamante ni euh, ku fi la tëdd ñoom itam euh, ñu ñëw bokk ak waa daayira Moukhaddamatoul Khidma waxtaan yu am solo yi nga xam déglu nañ ko fi te ñu doon waxtaane lu aju ci sëñ bi sax nag nga xamante ni macha allah fi ñu tombee dafa dafa am solo lool biñ ci noppee itam ñëw nañ ci ndogu yi euh, am na lu ñu fi gis am na lu ñu fi seetlu ak relation bi ñu am ak daayira Moukhaddamatoul Khidma yooyu yëpp sëñ Assane Fall dina ci ñëw wax délégation bi mu àndal ba noppi am kaddu yoo xamante ne ko joxle incha allah sëñ Assane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi lazi minna talab ixlaasa sa'yin wa muraa'atal adab man yansurul xuluuba wa sharaa'ira doona lazi mina yakunu zaahira summa salaatu ma salaamin yatbahu ala lazi fina xadan yushaffahu man bi fadaa il ngudaa taala wa an razaa il radaa taala muhammad al kaashifi an naa xumma wa alihi wa sahbihi wal umma mbokk yi ñuy seetaan wala ñuy déglu suñu kàddu ak fu ñu mën di ne ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul wala ci kàddu sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér waaye di ñaanal tam jëwriñam bi sëriñ Muntaxal Bachir suñ borom yàggal fi lool te mu ànd ba mbooleem naa la ñu nam ma liggéeyal seen ñaari maam ya ngi def ca ba def ca lu kawe seen i di sant bu baax ci jotaay bi nga xamee tey suñu kilifa yee di ñi sëriñ bi dénk war may Touba. te nga xamee ne sëñ Assane mooy njiit la yebaloon ñu fii tey ngir ñu ñëw fekke jataay bi nga xam ne dañ koy fekke ngir euh, waxtaane taarixu dëkk bi ci cosaan waaye tam taarif téere bii nga xam ne mooy la bul Matlabul Fawzeyni te dafa mel ne li sëriñ bi naaloon wala mu mébét ko lépp ci la ko dugal ci la ko dëxëñ soxla woo lool nag mel na ne li nit ñuy xam baax na waaye daa mel ne xam lu téere bi tam farata la ci ku bëgg a dëkk Touba te nam moo war worma yi nga xam ne sëriñ bi da ko fi doon sàmmlu waaye itam ku bëgg a bokk tam maanaam participer ci projet bi nga xam ne sëriñ bi mébétoon na ko soxla woon na nga xam illay téere bi ak li ko taxoon a jóg tey nag ñu fekk fi loo xam ne euh, wax dëgg ndaka jekk sax noo xam ne fii moom lii la baaxoo ndax wali baana xayru chanyin sëñ bi moom lu baax yëpp suñ borom da ko béralal waaye nag bi ñu egsee nag li nu suñ ay bët wan bokkutoon ak nag leen jortoon li ci gën a yéeme mooy yu bari yi nga xam ne sëñ bi lu ci ne da caa wax lu am solo waaye yéen ñii di moom xeen xidma ngeen taxawee yëpp asalawaatal xam si daaban yaa hakim loolu fes na ndax buñ tolloo ci waxtu yi ñuy xéewlu sax bu jul bu waxtu julli jotee ñëpp jóg dem julli ji kon sëñ bi ñaanam googu yéen bokk ngeen ci ñi koy dëggal sëñ bi tam waxoon lu am solo da ne su kàddu yi jëmee ci suñu boroom ak cant la waaye bu jubloo nit ñi ndigal la ndigal yooyu yéen a ngi cey def seen kéemtalaay kattan waxtu wi tam waxtu yëpp baax waaye waxtu koor ku ne xam na ne ak jagleem la euh, ama siyaamu fa huwa min afdali ma talabta mardatan bihi wa ni'ama li anna fil jannati baaban laa yaqib fihi shiwa ahli siyaami fantasib loolu biñ ko gisee kon day mel ne yi ma bëgg a léegi mooy yu baax yëpp te war a dajee tey biñ ñëwee fi suñ bët tege na ci la ca doy waar nag mooy dañ fa fekk suñu alal luñ moom loo xam ne dañoo jàppoon ne ñun ko am mooy lii fekk mooy liggéey boo xam ne euh, bët bu ci tege sa xol sedd ndax rafetaay bi ak ak taar bi waaye boo gisee nag njëlbeenu li ma ubbee ne sëñ bi moo Euh, alhamdulilahi lazi min naa talab iqlaasa yin wa muraatal adab loolu moom du lu ñuy wax waaye boo jàkkaarloog jëf yi xam ne maintenir nañ condition yëpp la ci gën a neex nag mooy sëñ bi loolu daf koo layal ama sadaqatu maal infaaxi fa jamaal xayraati bi tifaaxi ka kulli ma yakunu nafxal muslimin wa silati rahima aidan kullahin wa xiila in adari yowmul baari wa duriba shiraati fawqa naari wa kaabatal wara jawan wa xumma naada munaadi ayna alil xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumuruuna li jinaani musriin bi ay yuxaala lahumum jon lahumum dul janna bi xeeri mihnatin wa xeeri finna faqdimuhum turran li waccillaay faqat bi laa mannin wala tanaay faqdimuhum mooy waa muxadimatul xidma faqdimuhum turran li waccillaay loolu mu ci gën a ndax bi ñu defee wër bi ñu wër fii maanaam lim ñàkk lim ñàkk am nga xam ne Eh, doo xamee ñi fi war a toog ñu fi war loolu mooy moo ci gën a neex ndax lool moom mooy jëfi suñu borom dëgg dëgg joo xam ne yàlla rek ko tax a jóg. feenu jaar ban fa jaaree jetaa yi nu gis xam na ne wut leen xaj wut leen seen waaye da ngeen di wuyu yàlla ci wooteem boobu mooy jëf jëm ci moom rek loolu nag sedd suñu xool ndax dañoo defoon loolu suñu alal la ñun loolu ñu dañoo defoon na ngir noonu la waaye nag liggéeyu sëriñ bi barkeel gi ak nangu gi day tax eh, fii tam dafa am dafa am cëslaay xam nee nañu bi ñuy defaree jumaa ji ba noppi sëñ Fall dafa woon ne soro bi Cheikh Ibra la ko tuddee waaye loolu damaa jàpp ne nag ñooy waaye Moukhaddamatoul Khidma ndax lépp bépp barab bu ñu defar ba mu noppi dafa am lu ñuy wax maintenance mënu koo ñàkk te loolu Baye Fall lañ ko miine woon moom lañ ko xamee kon ba ci waa Moukhaddamatoul ma nekkee ñoo ci wut maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax liggéey yi lënkoo gi mu lënkoo ak jàkkaarloo gi mu jàkkoo ak duggante gi mu duggante loolu moom bokk na ci xar baax yi sëriñ bi di def ndax ñun tey bi ñu fi gisee bi ñu fi ñëwee suñu bopp rek lañ fi gis te xam naa ne fee ñu nekkit euh, la ñuy def ni mu niroog lii dafa mel ne ñëwoon fii ne fee moo moom li ci amaat solo lool nag mooy li nga xam ne lott nañ ci ndax sëriñ bi ni ñu defal tey jii xaside gi di Matlabul Fawzayni loolu wax dëgg fa yàlla euh, ñëpp a ngi ko ci ameel ak cant di ko ci ñaanal li ci sëriñ bi diggee yàlla bu ci dara ump ak mbooleem ñi ko doon dégg ak ñi nga xam ne euh, ñu ngi ko doon seetaan waaye itam nag Euh, di ci soññaan ñëpp nag ndax ni ñu waxee woon rek euh, bu xasee jëm ci suñ borom ak cant lay tudd waaye nag bu jëm see ci nit ñi ndigal la war a doon euh, boo xoolee nag bi ñuy bi bi tëral projet bi dañu wax ne asairu ta assaru bil bia maanaam dafa am yoo xam ne delluwaay ci ngay xam la doon jeexit foo la doon jeexit am foofa bu ñu xoolee ne ndegment yi sëñ bi doon waxal bu ñu toxoo dafa mel ne jikko yi dañ ko fee baax jikko yi nag la nit ñi amee mooy euh, wa charix wa taarix wa aqida wa naafis ak yooyu sëñ bi teqantal léegi rek yooyu day mel ne ay jikko la yoo xam ne bu fekkoon ne euh, ci ndegment lañ ko doon xaar dafa mel ne nekkatu ci ndegment yi waaye léegi nit ñi ko dëkk ci la ne. loolu nag kon day mel ne li sañ bi waxoon ne kon digal yi day dellusiwaat nag ci noonu bu boobaa nag day mel ne ñun ñoo war a góorgóor nag fexe ba du nu amee melo yooyu waaye nag nañ fexe ba mbooleem ñaan yi sëñ bi ñaan. nu fexe bokk ci ñi koy bénéficier waaye tam bokk tam ci ñi nga xam ne tam ndigal yi muy santaane kenn duñu ci man loolu nag su amee euh, li may waxoon léegi ba euh, alhamdulilah lazi min naa talab iqlaas sax yi moom muraata adab loolu mooy war mooy Tuubaa ndax day mel ne lépp day delluwaat nag ci delloo ko suñu borom mi ko moom te mooy sellal jëf yi nga xam ne moom daa sàkku ñu sellal jëf yi waaye itam nag sàmm teggi nii loolu bu amee mooy war muy Touba ji tey ñu taxoon a jóg te wax dëgg yàlla ñun ñu fekk leen ci nag fekkin woo xam ne wóor nañu wóor yàlla ne li ñu fekkee fii bu doon ne moo fees moo moo moo moo fees dell dëkk bi sëriñ bi du soññee war mooy tubaa ndax dana xam ne ñu ngi ci. kon nag mat na liggéey bii fës ba ñëpp gis ko def ko tam mu dee ab roy waay boo xam ne incha allah taala képp koo xam ne sa ba tegee na ci loolu dana def ak waar dana def ak jàjji waaye tam dina la dimbale ba nga xam ne du noonu nii la bëgguma guddal ndax li ma fi fekk. ëppante nañ ci teg yenn kàddu daa am boroom xam-xamu arab yoo naan xay ah, xaata yarta ibu su jaaju isan faa wa yango du cheikh fi saba bi farangati sëñ bi sëñ bi doon def uh, taarif bi sëñ Mamor li mu wax fii di ci tegaat dara sax ndigal la ndax ndigal moom ñun moo ñu booleeg liggéey bi tey day mel ne lépp loo ci xam ne rek. Euh, maanaam ci jëf lay dellu ñu dañoo jàpp na loolu moom ndax ñun moom ay mafon lën la ñu ñuy jëfloo nanu gannaaw nag ñun ñëpp ay ñuy jëfloo lanu bu ñu bu ñëwee ba fi ñu sàkkuwaat lu mel ne lii duñ ko gàntal waaye ndigal li amoon daal mooy ñëw fekk jataay bi rek ngir tey li ñuy wax ñun ñoo ko war na wax bu amee ñu ñu ko waxal nag te mëne ko nii ñu ko mëne xamee ko nii ñu ko xamee loolu moom mboolem jabatu Cheikh Ibrahima Fall gépp ñu ngi leen ci amel ak cant te di leen ñaanal liggéey bi ngeen taaw ko ba yeggale ko sëñ Tuubaa fu mu ko yéene woon te saa bu ngeen gëstoo bala ngeen a gis ñu leen ci wutu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi adadi